amis internet nuyu nañ leen ziar lañ bu baax a baax ñu am mbégte kontaante ah mbokk yi comme ni ngeen ko xamee rek saa ne si waxtu wi ñu leen di bu baax a baax comme ni ngeen ko xamee nag waxtu wi ñëpp xam nañ ni ñu ngi si wàccaayu tabaski ba tax na rek képp koo xamante ni mi ngi ñuy seetaan rek ñu ngi leen nuyu di la ziar ci fi nga xamante ni foofu nga toog waaye di la wax rek euh, déwénati ñu anticipé ko ah di nuyu di ziar nag sama mbokk yi nga xamante ni ah, dañuy bàyyi xel bu baax a baax di ñu topp ci émission bi nga xamante ni euh, moom mooy euh, Top People mbokk nag comme ni ngeen ko xamee nag tendance la ak Activision ak li nga xamante ne moom mooy euh, information people mbokk yi ba tax na tey euh, tey nag dañuy ñëw ak yéen si exclusivité yi nga xamante ni damay wax ni artistes yi seen yaram dafa tàng ba tax na tey euh, bëri na artistes yi nga xamante ni ah génne nañ li nga xamante ni moom mooy clip am na ñi nga xamante ni aussi tamit ñi ngi annoncé. li nga xamante ne moom mooy seen euh, seen seen album waaye du nuyu di ziar bu baax a baax ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk euh, diaspora ndaxte ah ñoom dañuy suivre bu baax a baax émission bi nga xamante ni moom mooy euh, Top People mbokk yi falaa jaar du nuyu bu baax a baax ki nga xamante ni moom mooy Adama Gueye depuis États-Unis ñu koy nuyu di ko ziar ak suñu mbokk yi ak suñu xarit yi nekk foofu waaye ma dugg biir Paris du nuyu ki nga xamante ni moom mooy Delia li ma koy nuyu di ko ziar ak ki nga xamante ne moom mooy Samba ah, borom jë borom këram et toute sa famille ñu ngi leen nuyu di leen ziar bu baax a baax waaye du ma ki nga xamante ne moom mooy ba depuis Belgique ñu koy nuyu du koy euh, ziar bu euh, baax a baax waaye mbokk yi duñ nag biir Sénégal du ñuy nag ah dugg fi nga xamante ne moom mooy biir Pikine du ñuy nag euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa ETT waas Cité Police ñu leen nuyu di leen ziar ndaxte macha allah foofu lañ bokk ah di leen bëggee bu baax a baax mbokk yi comme ni ngeen ko xamee nag nee leen tey exclusivité la ñuy dugg ba tax na ki nga xamante ni damay wax ni Sénégal dañ ko amee njukkal nekk ki nga xamante nii damay wax ni euh, xale la bi nga xamante ni euh, actuellement ni ñu ci yoonam di dem te ñëpp war nañ ko bàyyi xel li des rek mooy euh, li may faral di wax rek mooy Prince a war nañ ko gën a jàppale waat war nañ ko gën a may doole mais également spectacle yi war na gën a mën a bëri ba tax na saf na ba noppi boo leen ko déggee rek xel day dem ci ki nga xamante ni moom mooy euh, Momo Dieng Momo Dieng nag mbokk gis ngeen nag tey am na fi nga xamante ni fa la génnaat muy clip bi nga xamante ni gis naa si sama doomu nday Aziz Dabala ma leen xoolee mën nañu wax ni actuellement nii clip yi xamante ne moom mooy génn si Sénégal yëpp moo koy fecc ah mu nekk loo xamante ni vraiment suñu fierté la na ba noppi nag nekk clip nga xamante ni mbokk yi Momo Dieng ko génnee mu nekk loo xamante ni euh, yaar naa euh, comme ni ñu koy waxee rek sénégalais yëpp ah chapeau la ñuy wax Momo Dieng di ko félicité ndaxte macha allah mi ngi si yoonam di dem mais li des rek moom mooy war nañ la commencé dégg ay ay ay grand théâtre war nañ la mën a commencé dégg nag ci esplanade en ah, grand théâtre pourquoi pas CICES ndaxte mën naa wax ni public boobu am nga ko et talent boobu aussi tamit am na dem seetaani clip boobu nga xamante ne moom mooy saf na ba noppi ki nga ne moom mooy euh, Mouma Dieng suñu doomu Papa ni macha allah ah bu wayee mu neex a neex mooy da ngay sentir ci moom loo xamante ni euh, souvent dañ koy dañ koy fàtte muy discipline bi nga xamante ni bokk na si li gën a tax euh, ñu ko mais talent bi nga xamante aussi tamit am na ko mu bokk aussi tamit li gën a tax tamit ñëpp d'accord kon kon mbokk yi may di wax rek ngeen dem découvrir clip boobu nga xamante ne moom mooy saf na ba noppi waaye bu ñu jógee foofu nag euh, mbokk yi comme ni ngeen ko xamee tey sama yaram dafa tàng ba tax na tey nee naa artistes yi ah ñoom it seen yaram dafa tàng ba tax na ku nekk ak tey fi nga génn ñu ñëw nag euh, ci ki nga xamante ni moom damay wax ni jigéen bu mën góor la ah jigéen bu mën góor la euh, ndaxte jaar-jaaram dafa nekk jaar-jaar boo xam te jaar-jaar bu yaatu la ndaxte ku jaar ci ginnaaw suñu papa Youssou Ndour rek xamee ni kooku ndaanaan la ndaxte ñëpp xam nañ ni Il na ko lu albums hip ko lu na façon album bu na album hip hop génne na fi album mbalax euh, na rap lu nek def nako su musique muy ki nga xamanteni mom moy Viviane Sidit. Viviane Sidit ki nga xamanteni damay wax respect ndaxte artiste la bi nga d'accord Viviane a euh, vraiment talent pur talent Viviane kon Viviane ñu ci li nga xamante ni démb ah génnee nga ko ndaxte ah damay nekk ak ñi nga xamante ne ay ay ay rappeur lañ sax mais dañoo d'accord ku mën na def mbokk ku mën na def benn extrait extrait bu ndaw la boo xamante ni Viviane da ko da ko def démb mu nekk loo xamante ni képp koo xamante ne nekk nga si hip rek da nga d'accord xam ni kii damay wax ni ah, ndaanaan la ah mu nekk clip mu nekk benn extrait boo xamante ni vraiment Viviane dañuy wax chapeau encore une fois respect ndaxte euh, vraiment am na fi nga fekk musique euh, musique Euh, Sénégal mais am na foo ko yóbbu kon dañuy wax rek euh, képp koo xamante ni rek melomaan nga wala fans nga rek yaakaar na euh, kontaan nga bu baax a baax ci ki nga xamante ne moom mooy Viviane mais Viviane mbokk yi tey dafa tëllaat ñëw fi nga xamante ne moom mooy xarit ah ndaxte ñëpp biñ ne Viviane xarit lay lay way ñëpp jàppoon nañ ne peut-être dafa am benn xaritam boo xamante ne da ko si rendre hommage ah, mu nekk koo xamante ne ñoom ñaar peut-être seen jaar-jaar dafa yaatu wala koo xamante ne peut-être am na fu ñu jaar ñoom ñaar mais boo leen seetaanee clip bi nga xamante ni moom mooy xarit da ngeen di gis Viviane doomam lay way muy Zeyna mu nekk loo xamante ni vraiment boo ko seetaanee dafay am looy sentir sentir ni am dafa am benn complicité boo xamante ni dafa am ci euh, diggante ki nga xamante ni moom mooy Viviane ak ak Zeyna bopp di euh, di doomam loolu day firndeel nag diggante yaay ak doom dafa am benn complicité boo xamante ni da ci war a nekk ba nga xamante ni di nga mën a orienter sa doom teg ko si yoon bu baax comme Viviane encore une fois damay wax respect chapeau mais euh, ki nga xamante ni doomu Pikine la nga xamante ni damay wax ni fu mu teew rek drapeau pikin la teewal ñu koy wax Ndiolé Tall aussi tamit damay wax félicitation ndaxte damay wax ni bu ñu xoolee ñi nga doon àndal ñëpp di fecc dëgg la ñoom ñëpp moment bi bàyyi nañ mais yow yaa ngi continuer dugg sa yoon continuer di dem te loolu yaa naa sa fulla ak sa fayda moo la ko may kon Ndiolé ñu ngi lay remercier bu baax a baax ci euh, ci ci ci lu am solo li nga xamante ni yaa ngi koy yaa ngi koy yaa def ci musique euh, musique Sénégal euh, mu nekk loo xamante ni vraiment lu am am solo la mbokk yi waaye nag ñu ñëwaat nag ah laat feneen ndaxte ah de retour la ñuy wax de retour mais star de retour ndaxte gis ngeen fi nga xamante ni ah foofu la foofu la génnaat muy lef tout ah muy je tout Euh, je rate hein je lève tout je rate mu nek lo xamanteni ni la foofu la génnee muy clip bi nga xamanteni vraiment mbokki dama leen invité ngeen dem xolaat clip bi nga xamanteni mom la Astar def non mbokki clip bi il est magnifique xaw ma kan moo def réalisation mais euh, muy euh, muy Bilal ah, mais clip bi il est magnifique seulement que clip bi rafet na vraiment son yi mais xeyna amna ben polémique bi nga xamanteni gis nañ ko légui muy ki nga xamanteni mom moy réalisateur clip bi muy Bilal bon mom waxna né peut-être le euh, clip bi def nañ ko mais amna quelques modifications yo xamanteni gaay def nañ ko te du moom def mu ne quelques polémiques yo xamanteni ni gaay ah, gaay bon le réalisateur mi ngi wax muy euh, ki nga xamanteni ne moom Bilal mais loolu ci mën dégg rek moy damay dama leen inviter ngeen dem découvrir clip bu star boobu nga xamanteni vraiment image yi non da ngay da ngay da ngay xamni actuellement les réalisateurs vraiment ah ñi ngi def liggéey bu ama am solo boo leen xoolee ci habillement ci couleur ba ci endroit bi nga xamante ni fa lañ defee clip bi rek macha allah da ngay ni gars ñi ngi a baax kon Astar lay ñu lay félicité baax a baax ah ci clip xamante ni moom nga moom nga wane waat sa retour ñu lay wax rek ah bon vent ah ndaxte macha allah xale bu am xale bu am talent mbokk yi ba tey rek dañuy konnewaat nag ci euh, ki nga xamante ni ah moom mooy euh, Jaba Jaba gis ngeen macha allah dafa neex ah dafa neex nekk clip bi nga xamante ni keroog gisu ngeen ñu dugaloon leen li nga xamante ni euh, moom mooy euh, bande annonce bi dafa neex nag clip bi génn na macha allah ngeen gis si euh, Jeeba ànd ceeg ki nga xamante ni moom mooy Dieyna Balde macha allah mu ko si mu nekk son boo xamante ni ak clip boo xamante ni mooy li may wax rek. actuellement nii gars dangay da ngay sentir réalisateurs yi ah ak image yi nga xamante ni da nga koy gis da ngay gis ni da ngay gis ni affaire mi ngi avancé bu baax baax mais Jeeba nag moom dafa am artiste boo xamante ne moom particularité mooy da ngay gis ne ay ay ay ay son da nga gis xale yi dañ koy dañ koy enjoy bu baax mu nekk loo xamante ni vraiment dafa dafa dafa am solo kon jeebaa ñu lay félicité bu baax a baax ci clip bi nga xamante ni def nga ko ndaxte comme ni ma koy waxee rek euh, artiste moment bi seen yaram dafa tàng ndaxte euh, comme dañuy annoncé li nga xamante ne moom mooy tabaski bi xam naa xale yi actuellement nii ñi ngi préparé sañse yi waaye ñi ngi préparé nag li nga xamante ni moom mooy euh, li nga xamante moom mooy soirée bi mooy li nga xamante moom mooy soirée yi kon li ñuy wax rek mooy actuellement nii boo demee si fi nga xamante moom mooy ci YouTube bi rek di ngeen mën a ah, ah, di ngeen am possibilité mën a seetaan clip boobu nga xamante ne moom la jëbaa def ah, muy dafa saf dafa muy dafa neex dafa neex nekk clip bi nga xamante ni maa ngi leen ñëpp ngeen dem découvrir ko ndaxte clip boobu moo xamante ni chanson d'amour la boo leen image aussi tamit macha allah image yu ah ñëw nag si boy bi nga xamante ne moom dafa waanee boy bi nga xamante ne moom dafa dooj booy bi nga xamante moom dafa dugg si hip hop ak stylam ndaxte booy la bi nga xamante ni moom bi mu duggee si musique ñi nang woon nañ ñi nangu ñu mais finalement gars yi nangu nañ ndax xam nañ ni euh, bu ñuy wax musique ah style da bok. bokk muy wax musique dëgg la talent da ci bokk mais style da ci bokk muy euh, ki nga xamantene moom mooy euh, samba pesi ah samba samba pesi ah gene ban annonce bi nga xamantene bientôt inshallah ah di ngeen ko gis ngeen gis mu ànd seeg ki nga xamantene moom mooy moom mooy soxna muy dawalal ah dawalal nak nek son nek clip bi nga xamanteni bientôt inshallah di ngeen ko gis mais bande annonce bo len demé ci uh, youtube bi di ngeen ko gis ah ha? samba ñu wax rek encore uh, info encore une fois fancy namo nañ la mais lo len ci mën deg rek moy inshallah bientôt di ngeen gis clip bobu ci ci ci youtube bi mais aussi tamit ñaari boy yi waane nga xamanteni muy ki nga xamanteni mom moy matadi ak king baba gis ngeen ñu def uh, featuring bi nga xamanteni ah ha? kilim ah, la boo xamante ni macha allah gis ngeen euh, booy xam nga ñoom dañoo waane da ngay jékki-jékki si leen ñu génnee fii nga jékki-jékki si leen ñu génnee fee ah sol ah soft soft la la la clip bi tudd soft nag nekk clip bi nga xamante ne ñoom def nañ si ay message yu am am solo ma leen invité ngeen dem découvrir ko ndaxte King Baba ak doomu ndeyam ki nga xamante ne moom mooy Matadi ah ci clip bu am solo boobu nga xamante ni euh, def nañ ko mbokk yi may nii ñëpp di ziar nam nag di wax nag ah li nga xamante ni comme euh, top comme ni ngeen ko xamee fashion la. ak li nga xam ne moom mooy tendance ak information people ba tax na aussi tamit ñu ñëw rek ci ah li nga xamante ni moom mooy ah, ah groupe immédiat boobu nga xamante ni actuellement nii dégg ngeen ah def na buzz muy depuis mois d'avril ah ngeen gis ni ñuy ah, ñuy wax ne fay fayuñu ah fayuñu li nga xamante ne moom mooy salaire yi du ñu mën am sax li nga xamante ne moom mooy avance. ah avant sa tabaski euh, kon euh, loolu ci man dégg rek bokk na aussi tamit ci li nga xamante ni yaa naa nit ñi ñu ci ñu ngi ñu ngi ciy coow ba tax na may nuyu di ziar nag ñëpp ñi nga xamante ni ah dañuy topp seen émission bii xamante ni moom mooy euh, Top People ndaxte nee naa leen ah lépp loo xamante ni exclusivité exclusivité la fi ngeen koy gisee fii si la première chaîne de la banlieue di IM Télé seen émission bii di Top People may jaajëfal ki nga xamante ni ah moo nekkoon ci cadrage waaye nag di nuyu sama mbokk waalo waalo yëpp nga xamante ni vraiment ah dañuy envoyé message dañuy encouragé di rafetlu bu baax a émission bi nga xamante ni moom mooy euh, Top People Omar nag moo nekkoon si cadrage bi mooy ni ñoom Amir ah ñoom Carla ñoom Maguette ñoom salaam Salam ah Jongma 82 Ziga ah ñoom euh, Alex ah ñoom ñëpp ma leen nuyu di leen jaaru baax a yi tey nag li na leen andiloon seen émission Top People suba incha allah ñu fa laaj feneen nag incha allah jaajëf